kon man ngeen a teg seen baaraam ci juróom fukkeeli aaya ak juróom-ñeent ci suratul qasas yàlla di ci wane ne lépp loo xam ne nit a koy fàggu ci àdduna moo xam ci doom la moo xam ci alal la moo xam ci ndomba tànk la moo xam ci daraja la loola boo ko jëmeewul ci yoonu yàlla sa musiba rek la lay jural ëllëg waaye soo bëggee noppalu lu la yàlla sédd rek delloowaat ko yàlla lii nga delloo ko ko direct lii nga delloo ko ko jaarale ko ci ay jaamam boole daal ñaari ñaari tànk di ko doxee mooy jaamu yàlla ak topp yàlla suñu ne topp yàlla mooy sa digganteek yàlla direct suñu ne jaamu yàlla mooy jaamu yàlla ci ay jaamam waaye lépp lu la yàlla sédd lu mun di doon te delloowuloo ko ci yàlla rek yàlla nee na pertement la lay jural ëllëg musiba la lay jural ëllëg jafe-jafe tamit tabaarakallaahu la lay jural ëllëg moo tax mu ne womaa lépp loo xam ne utiitum joxeef na leen ko min shay'in ci lu mun di doon ci sababu àdduna moo xam ci njaboot moo xam ci alal fa mataaxul xayaati yóbbul ak dundu gën a adduniyaa bay aji jege wa zinatuha ak ak taaramba de yóbbul ak àdduna bu jege gii la ak ba waaye wa ma indallaahi la nekk fa yàlla ci payoor xayrun moo gën fuuf wa abuqaata moo gën a des yàlla dana la ko dencal du yàqu afala tàqil lu taa ngeen xelu dem huti lu ngeen jiital ci seen bàmmeel yi jiital ko ëllëg mu man leen a jural naflaay ci aljana ba nga jël li ngeen di fàggu di ko korkoral ba dee ba mu dee ba ngeen dee ci loxoom boo lëggee ngeen perte mu jural leen mbugal yàlla ne afa man ndax ka nga xam ne waxat naahu dëxal nañ ko wax dan dëxal xasanan bu rafet fa huwa ta moom moomu ñu dëxal laaqihi aji dajee laaj lañ ko dëxal ka man ma tax naaw ndax mën naa xem ak koo xam ne dañ koo yóbbalul mataaxal xayaata ci yóbbal ak dund gi addunyaa gu jage gi su ma huwa topp moom yowmal qiyaamati keroog bis penci minal muxdarina dana bokk ca ngeen teewal ngir xisaab leen gannaaw bi ñu leen teewalee dekkil leen gannaaw bi ñu leen teewalee timit bu ñu xëyooxee lañ leen joxoon rafetul ko ñu dugal leen safara ndax ñoom ñaar mën nañoo xem tontu ba ku ne mën nga koo tontu mooy déedéet rek kon ku bëgg a noppalu àdduna mi nga xam ne dafa gàtt ba sax amul tur lu lim doon rek la tudd duniyaa mooy tekki lu jege lu jege jeex loo xam ne jege na te àdduna bi li muy gudd gudd yow mii di dund ci biiram yaa ko gën a gàtt sa gàtt gi mën nga koo jàngee ci bi nga juddoo noddal nañ la ci noppam nday joor liqaamal nañ ci noppam càmmooy li ki des nag buñ tuddee nodd tudd liqaam lu xel di daj rek mooy julli moo tax bi nga dee dafa jege ñaar ñi de ba baamuwaatuñ ko bu nit ki deeyee rek defar leen sàpp yi imaam kabaar amul noddaatal amul liqaamal defaloon nañ la ko su ko defee nag kon ku am lu tuuti foye ko kenn gënu laa ñàkk xel lu tuuti da nga ciy war a profité ba mën laa jural lu bëri loo xam ne dootul jeexati ca moo tax tamit beneen bi àdduna ni ko olof jëlee moom maanaam àdduna ci olof mooy tekki àdduna rek toujours àdduna dafa am ni muy àddoo ni muy àddoo ci tàngoor ak ni muy àddoo ci sedd ak ni muy àddoo ci jafe-jafe ak ni muy àddoo ci koom-koom duñ benn àdduna nag bu àddoo yow wuyoo ko ci ni mu àddoo rek nga mujj torox soo bëggee lu daal fi mu àddoo rek nga tontu ko ca tey daal bis bi lii la laaj kon nii la àddoo taxawal mu wuy ko ci nii soo liggéey nga ne tamit fii la addoo ma wuyoo ko ca foofa kon àdduna mooy bëri lu muy addu addu yu bëri yooyu moo tax ñu tuddee ko adduna adduna fii tey ëllëg mu àddu fale su ko defee kon addunaango yonentu yi ñoo ko comprendre loon ñoom lu ñu am rek delloo ko ci yàlla denc luñ dara suba dañuy wax ne ku fi yàlla bàyyi suba dana la jox dépense ab suba waaye nekkuñ fi woon di doon ci def ay compte banque yu dul jeex di leen sonal yooya musuñ koo def lu am rek delloo ko ci jaami yàlla yi su ko defee gaa ya leen roy tamit ci loolu ci yooye maqaama tamit tabaarakallaahu la ñuy dund waaye jël alal jal ko su ko defee ba li nga xam ne yaw li nga bàyyi gannaaw mu ëpp li nga jiital kooka toskare la lay donal moo tax daal jal ko jël ko yombut li gën a bëri mooy jal ko ñu jal la jël li nga jaloon ñu fi bëri dañoo jaloon seen alal ci compte banque yi ñuy jaloon ko ci ay immeuble ñuy jaloon ko ci ay oto ñuy jaloon ko ci yeneen dee nañu des nañ ba mu xóot jal leen dem nañ jël lañ jaloon su ko defee kon nag ku bëgg a noppalu feexeel nga jiital la ngay jiital ci yàlla ëpp li nga desal yeneen tunu daana wax ne nit ñi daal lañ leen di donn moom lañ gën a xiir ci lañ war a jiital ci seen bàmmeel te wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah aaya jooju nag gannaaw bi mu paree mi ngi wax déclaration bi nga xam ne nañ doon topp ñëpp bu yowmal qiyaamee kenn nit la topp ñaari nit la topp junne nit la topp da nga def déclaré ñi la topp foo jëmee lu fekkee yaa leen jëmee ci sa bopp wala nga jëmee la ci sa juddu bu yowmal xiyaamee da nga wéet ak yàlla ba réccu loo doon juddoo soo leen dellooyee ci yàlla bi nga xam ne nag ci waxin gannaawam nga ci la ñëpp xaj yàlla takkal la garaat wane ne yow ku liggéey nga ci diineem ji yàlla ñu ko yàlla defal yowmal xiyaam nag ñëppay def déclaration yonentu yi danañ def dereete yonentu yàlla noox ña ko toppoon fu mu leen jëmee Ibrahima ñëw Moussa ñëw Isa ñëw ba ci Sayyiduna Muhammad ñëw ñoom ñii nag buñ defee seen déclaration yonent bi moo leen di seedeel ne li ñu wax ne gëtaloon lañ ko dëgg la yeneen xeet ne ko kii bëgg leen a seedeel fekkeewuñ ñu moo ñu jiit ñoo ko jiitu mu ne yaa wàccee woon ki ñoom téere boo xam ne bàyyiwul dara li xewoon ki seen histoire yëpp téere bi wax nañu ko moo ñu xamal ne li nga waxoon noox nëbbut ca dara wax na ko te jëfee na ko ñu gis li nga waxoon Ibrahima noona li nga waxoon Moussa noona ñëpp su paree tamit iblis mi gaa yi toppoon mu leen di gëmloo na jaamu yàlla pertement la gëmloo loo jaamu xërëm ñii mu gëmloo leen jaamu saytaane ñii mu gëmloo leen jaamu nit ñii mu gëmloo leen jaamu bànneex ñii mu gëmloo leen jaamu seen bakkan dana taxaw na leen naxoo mbaay yàlla waxoon na leen dëxal leen lu nekkoon ci dëgg ngeen bàyyi ko fi man ma waxoon leen ay caaxaan ngeen topp ma ca tey nag maa ngi yéen yépp ci safara kon mboo mboolem kuñ toppoon sëriñ yéeg ñëpp kenn ku ne def déclaration ci kanam yàlla moo tax ci xam li xew dëgg-dëgg bu ko nit ñu toppee dafay tidde moo tax alquran ne wa yawma yunaadihim fàttalikul bis boobu yàlla dana xooleen fa yaqulu wax moom yàlla ne ay na surakaa yi ana ñu ngeen ma doon bokkaaleeg allazina ña nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tasumuuna di wax ne ñoom ay yàlla lañ kaa la wax allazina ña nga xam ne na xaqaina alayhim ci ñoom alqawlu baatam mbugal te mooy la am la ana jahannama ñu ne rabbanaa yow suñu borom haawulaa yi le gaay allazina ñoo ña nga xam ne axaway naa dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ leen a sànkoon maanaam ci seen ak ci seen ak coobare naa naahum mooy xabar ji ak naa naahum sànk nañ leen mooy xabaru haawulaay ji kama way naa comme ñun ni ñu sànkoo te ba naa dañ nañ nag bis ni ki tey ilayka jëm ci yow dañ nañ ci ñoom de topp ñu woon maakaanoo nekkuñu woon yaabudun di jaamu ilay ñaa ci ñun ñu ngi koy weddi ci kanam yàlla wa qiila waxeef moom ne uddu du maanaam woo leen surakaawakum seen yàlla yi mooy ñu ngeen doon bokkaale fa daawhum hoo nañ leen fa lam yastajiiboo duñ mën a duñ wuyu lahum ñaal leen waraaw gis nañ al azaaba mbugal law annahum doonte naka ñoom kaanoon nekkoon yëxtunoo di mën a gindeeku de foofa tamit du fa jariñati su ko defee iblis la ñuy woo mu ñëw def déclaré wan yàlla ne inna laa waadakum iblis ay wax inna laa waadakum waada wa waadtukum fa axlaftukum fa maa kaan li alaykum min sultaanin illa an daawtukum fa sajabtum lii falaa talumuuni wa luumu anfusakum maa wa inni kafartu bima asraktumuni min qablu iblis taxaw ne yàlla de moo leen dëxaloon dëgg ubbil leen jàkka yi julli doo fay dara man ma ubbil leen am fo ku ñëw fay yàlla ubbil leen ndox mu neex nga naan mu defar sa jëmm may la santé amul fay dara wala maanaam payor ga yomb na man ma xooleen ci sàngare mu yàq seen xel yàq seen jëmmu yàq seen alal ngeen bàyyi fi dem di ko jëfandikoo yàlla xooleen leen ci jigéen goo xam ne lew na leen ngeen bàyyi ko fi ma wan leen ne soxna sii nga yaakaar kii ngay xool ci mbedd mi moo ko gën a taaru li nga bëgg moo la ko mën a jox ngeen bàyyi loola dem di sëy ñi nga xam ne takkuloon leen tey nag naxoo mbaay maag yéen yëpp ci safara kon mboolem iblis li muy xirtal ni ñu ngi sey dem rek boo liggéey bu defee déclaram bi rek ñëpp rus kon nag ku fi toppoon iblis ki topp jigéen ñi sooye boo bako soo liggéey da ko réccu ku fi toppoon iblis di lekk xal li jàmbur yi sooye boo bako bala laa bàyyi ca kanam yàlla ku toppoon iblis ki jaamu sa bànneex sa bakkan wala loo mën a jaamu lu dul yàlla sooye boo ba ko ku toppoon iblis ki ñàkk ñàkk a topp ci yoonu dëgg sooye boo nga ba ko soo liggéey tamit moom dana dañ ci kanam yàlla ci yow yàlla ne na yaa sàgganoon ba la doon réeral yaa ngi àndoon ak xel ànd ak ay bët ànd ak lépp lu ci aju kon ci xel rek kon su boobaa nag yaag ñoom ñëpp ci safara ñi nga xam ne tamit dañoo toppoon ay nit ñi leen di réeral jëmee leen ci seen bopp heure bu ne seen bopp rek lañ leen di wax lu ñu wax lu yàlla wax duñ leen wax ci sharia duñ leen wax ci mbaax ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi mandi ca loola te mandi wuñ ci ñi boo léegi ñi dañ seen bopp alquran wax na ko iz tabara allazina tubiu min allazina tabaau wa raahu alasaba wa taqata bihum al asbab ba laay ja jeex ñëpp ñoo ngi dañ ci ñoom yonentu yàlla Isa ñëw tamit yàlla def moon moom déclaré ne ko yow ni ñi toppoon yaa yàlla ndax yaa ko waxoon ni ñi mu ne déedéet maa qultu lahum illa ma amartani li ma waxoon dong laa leen wax ñoom ñii ñoo ay caaxaan bu ko defee yonentu bi ñëw tamit seede xeetam wi ne liñ ko waxoon yépp jotal na ko yeneen yonentu yee lañ waxoon lépp tamit maanaam yonentu bi taxaw ne maa leen seede ndax maa jàgg téere boo xam ne wax na ci seen biir kooku tamit alquran wax na maanaam seedeeg yonentu bi li ta maanaam maanaam danga ko wax ne maanaam ummatan wasat li takuna shuhada ala naas wa yakun rasul aleykum shahida fële wax na tamit maanaam bis dana ñëw ñu indi maanaam yonantu yi indi tamit ñi nga xam ne ñoo doon toppoon ñëpp kenn ku ci nekk def sa déclaré kon nag lii balañ cee yegg kenn ku ci nekk nanga nga seet ki nga topp fu mu la jëmee bu la jëmee ci boppam ba ko fi dem topp yàlla boo la jëmee ci seytaane ba ko fi bu la tomee ci bakkan ak yeneen yu mën doon ba ko fi topp yàlla boo liggéey kat boo ko bàyyiwut boo liggéey moom dana taxaw ci sa kanam ci kanam yàlla ne toppul ma woon ci nangam ak nangam yéen ñaar ñëpp yàlla dugal leen safara moo tax kon ku nit ñi topp digal leen ñi jaamu yàlla te jiitu leen ci tere leen ñi bàyyi jaamu bakkan jaamu seytaane ak caaxaan su ko defee timit ta nga te buñ la gis ci lu bon loola li gën a gaaw ci ji euh, maanaam digle mooy li ngay digle nga nekk ci li ngay tere timit nga bàyyi ko waaye li gën a xées ki digle mooy nekk kilifa ak sondeel yaa ngi niital nit ñi muy leer lool nee bi leer na mais yow fekk yow ko yaa ngi lakk mooy yaa ngi digle lu baax te fekk yow maanaam nekkoo ci kon nag yëpp jar na bàyyi xel topp topp gi yëpp coono rek la lay indil suñ la toppee te tegoo leen ci yoon ku bëgg ku la topp booye boo dee rek ku dee ku la topp te boo dee dañ la jox dara gi ju gën a rëy ki ñu daan topp loo ñàkk-ñàkk daraja boo dee gars yi dañ la jox daraja ay sang la kanaa bëgg daraja nag yeggagu ci kaa leen sang ma kuy koo xam ne tamit dañ laa da nga bëgg la topp soo dee dañ la sang solal leen ma yëre ci danañ la yenu waaye nag tamit fañ lay wàccee nag foofu mooy asfala saafilina dugal la ci biir pox mi rek sotti la suuf si wane gannaaw kon su boobaa nag kon bëgg ku la topp jëlul xaste jërul maanaam réeral nit ñi jërul maanaam tamit wooteel ay maqaama yu amut jërul yëkkati say daraja jërul nangama yeneen yi ku bëgg ku la topp deexal ku dee xam ku la topp ak loo ñàkk-ñàkk daraja moo tax yàlla ne wa yawma yunaadihim fàttalikul bus boob yàlla dana xoo yàllaay xoo jaamam yi fa yaquulu wax ne maada ajabtum ana leen ngeen tontu yéen ñii mursali na ñu ñoon ni woon ñi xoo nit yi noox ya lu ngeen tontu woon noox Muusa ak Ibrahima lu ngeen tontu woon fa amiyat lëm na alayhim fi ñoom an baawu solo du ñu mën a tontu dara yow ma isin bi sa keroog fahum ñoom laa yatasaaluun duñ laajante ngir ak ngir ak ngir ak ngir maanaam gëlëm waaye fa am man taaba ndaal képp koo xam ne tuub na ci bokkaale wa amana mu gëm wa amila mu jëf saalihan jëf ju baax fa asa an yakuna kooko ca dëgg-dëgg dana nekk minal muflihina bi bokk ki ngi texe ña taxqiq la képp koo xam ne tuub nga boole ko gëm yàlla ci jëf-jëf ju baax bokkaale woo yàlla dong nga gëm di ko jaamu di ko rafetal bu yowmal qiyaamee ca ñu texe ña ngay bokk yàlla ñu ci yàlla boole aaya ji mu ngi teg te muy rabbuka yaxluqu maa yashaa wa yaxtaaru mooy yàlla mooy bind waaye mooy tànn doomu aadama man naa am bëgg-bëgg waaye la yàlla bëgg rek tànn ko mooy sotti ci moom su ko defee kon waaye benn mbindeef mën a tànn amul yàllaay tànn mooy tànnal bu fekkoon ne mbindeef mën naa tànn li ko noon jibril ak mikaayil danañ tànn haaruuta ak maaruuta walis mbugal mu métti moom a ñu nekk mënuñ ca dara su fekkoon ne mbindéef dana tànn li ko noon aadama dana tànn xaabil doomam jële rayoon haabil war a dem safara te mënu ci dara bu mbindéef mënoon a tànn yonent yàlla noox dana tànn kanaan doomam la moo ko jur ci ndigg comme aadama nam juree kale mu dugal ko safara kon yàlla bu jëlee doomu yonent yi dugal leen safara kon ku topp nit ñu baax ñi te lañ doon digle defoo ko foo jëm duñ ca man dara yàlla taxaw fudd ndigi doomu yonent yi ñu toog ñu toog carrément mënuñ ca dara ñoom seen bopp ñu ne ngéej mucc kon waxuma la keneen su fekkoon ne tamit nit man naa tànn yonentu yàlla Ibrahima dana tànn eh, bàyyi taxam ba sa asara waaye mënu ca dara yàlla fu du ndigam du ca man dara naka noonu tamit su fekkoon ne nit mën naa tànn li ko doon Moussa dana tànn Xaaruuna nekk dooy bàyyi taxam war a dem safara te du ca man dara su nit mënoon a tànn yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana tànn bàyyi taxam bi Abu Talib wala mu tànn Abi Lahabin bokk ak bàyyam nday ak bàyyi ca ëllëgee buñ koy ndugal du ca man dara kon yàlla nag mooy tànn yàlla nag dana tànn ba pare tànnal la moom moomu tànn na yonantu bi gannaaw li waaye ni mu ko tànnee dafa bëri dafa tànn mbindeef yëpp ci diggante ji nit ak jinne ak ci malaaka bàyyi maag njanaaw mu tànn nit mooy sangab li ma bind waaye nag mu nekk nit ku nite nit ku mooy koy def ndigal yàlla yi bàyyi ay tereem waaye nit ku nite di bokkaale yàlla bu yàlla diglee defoo bu yàlla teree bàyyiwoo yooyu sax ñoo la gën l léeg nga yore maanaam mustikeran damay fekk yooyu ngay rey ñoo la gën fekk alquran wax na ko in humu ila kal an'am parce que yàgg mu ne bal hum addalu waaye nit ku nite nag yàlla tànn na ko ci biir mbindeef yi moo gën malaaka ndax malaaka mbaa xam nga sonnut ca su ko defee tamit nit ku nite kooku nit ñu bëri bëri yàlla tànn ci biir nit ñu te ñu euh, tànnal ci yonantu bi famille benn xabilatu bu ñu tuddee Qurayshi mu tànn ci biir Qurayshi Abdallahi ak Aminatu ci biir diggante Aminatu Abdallahi nag mu génne ca doom joo xam ne tànn ko moo gën mboolem mbindeef yàlla di Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tànnal ko tamit dëkk bi gën ci dëkk yi muy Màkka ak Madina gën ca dëkkam ba la uqsimu bi hadha al balad naka noonu tamit wàccee ci moom tànnal ko téere bi gën ci téere yi muy alquran di inna hadha alqurana yahdi lilati hiya aqwamu noonu tamit gis nga ko la ko tànnalee xeet wi gën ci xeet yi ci kuntum xayra ummatin uxrijat li naasi kon yàlla dana tànn ba pare tamit tànnal waaye doomu aadama mënta tànn mën nga am bëgg-bëgg waaye bëgg-bëgg buy sottal yàlla rek moo ko mën a tànn moo tax yonentu mi dégg yàlla bu daan wax dafay wax ne yow yàlla tànnal ma li nga tànn bëgguma lu dul li nga xam moom nga bëgg waaye bis boo bëggee tànn yàlla tànnut danga nga sonn sonale te doo doo ci jëlee ndam looloo taxoon sax yonentu bi di digle istixaar pour rek tànnaloo yàlla ci julli ñaari rakkaa ya fatiha qoyal kaafiroon fatiha lixlaas nga jàng ñaan nga tëdd fu laab na fekk nga faram nga mën nga mën a firi gént su ko defee nag booba boobaa lu la ci wan rek yàlla mën na la koo wan la ca gën bu baa moon la ko waaye boo mënta firi gént nag ba mel ni fi ni gént ak bukki ga kon xutal ku ko man mu defal la ko waaja dafa gént ñëw ci wala bukki moo gént ñëw ci sëriñ bi ne ko ah sëriñ man dama gént démb loo gént mu ne ko say ñax wu rëy rëy laa gént yenu ko mu ne ko yee eh, loolu baax na yàpp la bu bëri sax mu ne ko waaye nag li ma si jaaxal ma géntaat beneen sayu ñax mu teguwaat ci kaw sayu ñax wu njëkk wi mu ne ko yee eh, boobu baaxu dee la mu ne ko mais ma mbas ko sonn ta yegg si kon gént googu rek moo fi gën a bëri moo tax mu ne wa rabbuka borom sa yaxluqu mooy bind maa yasaaw li ko soob gannaaw bi mu bindee wa yaxtaaru mooy tànn ci li mu bind maa kaana nekkut lahum ñeel doomu aadama yi alxiiratu ak tànneef xiiratu bi maanaa ixtiyaar subhaana laay tudd na ma sell ak yàlla wa taala jomb na ammaa yusriku wala suñ koy bokkaale de wa rabbuka borom sa yaxlamu xam na maa loo xam ne tukkinu dana nëbbu suduuruhum seen dënnu li muy nëbbu ci lu ci mun di doon yàlla xam na ko lu baax ak lu bon wa maa yu'lin ak loo xam dana li ngeen di feeñal moom bi maa yoon ak loo xam ne ñu feeñal ko de li ñuy feeñal lépp yàlla xam na ko li nëbbu ci biir xol yi li ci nekk yépp yàlla xam na ko wa huwa moom buur bi allahu mooy yàlla ilaahu benn buur ilaahu ndare moom wa man lahu ak nekk na ñeel ko alhamdu melo wu sax te rafet fil uulaa ci àdduna wal axira ak laaxira wa lahu ak nekk na ñeel ko alxukumu xatte bu jub wa turjaxoona def na delloo jaam yépp ilayhi jëmee ci yàlla de gis nga yàlla mii mu ne mooy bind te mooy tànn ci lim bind waaye doomu aadama amul suwaa ci mën a tànn lépp yàllaay tànn mooy mooy dugal kenn ku nekk mooy tànn ñii def leen jullit tànn ñii def leen yéeféer mooy tànn ñii def leen ay wëliyu tànn ñii def leen ay xutbu tànn ñii def leen ay yonantu tànn ñii tamit def leen tabaarakalaaw ñu nekk di ay wuyu waaye ku sañoon xam nga ne bokk ca ñu nga bëgg a bokk waaye loolu lépp nag tànn ak yàlla waaye bu la tànnee nga bokk ca ñu bon ña boo liggéey mu dugal la safara ñu bari kon dañoo wax dalaa tooñ ndax moo bind li nekk ci yow su boobaa da laaj na luy tooñ tooñ ki ko xam dëgg boo ko laajee day wax ne mooy soppandiku ci alali jàmbur anam goo xam ne neexut ko loolu rek mooy tooñ yàlla nag li muy soppandiku moo ko moom ndax moo ko bind su boobaa kon nag yow amuloo bay mun dañ laa moom ki la moom nag fu ko neex mën na la faa jubale su boobaa kon fu mu la jubale tonnut maanaam tooñut la yow mi gën a naanaam néew doole mën ngaa jënd ganaar ñëw sa buntu kër wala xar nga rendi ko jàllale bi ku fees daggate ko togg kenn du la fekk ne da ngaa te loo def jënd rek kon ki bind nag moom lam dund bu ko rayee fu mu ko dugal tooñut moo tax dëgg-dëgg ñu dégg yàlla dëgg sax ñoom nekkuñ fi naan yow yàlla dañ lay jaamu comme dugal nga ci yoon wu baax bëgg nga may ñu aljana wala nga jox nga musal ci safara seen yoon newu ci safara seen yoon newu ci aljana la leen war ci yàlla nañ ko def boo liggéey fu leen yàlla yóbbu baax na ñoom yàlla la ñuy wut wutuñ aljana wutuñ safara ndax boo fi nekkee di wut yàlla di wut aljana wala ngay wut safara day mel ni yàlla bu xamutoon aljana xëyewut ñu jaamu ko day mel ni bu xamutoon safara tamit xëyewut ñu bàyyi ko mooy kon ki gën a mat ci nit ñi mooy koo xam ne buy jaamu yàlla wala muy bàyyi tere yàlla yi yoonam ci safara yoonam ci aljana moom daal yàlla dongu lay hut kooku la alquran wax ne euh, maanaam man kaana yarju liqaa rabbihi wala yaxmal amalan saalihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kon koo koo xam ne dëgg-dëgg buy jaamu yàlla jaamu yàlla du ca bokkaale dara bokkaale ci yàlla sax bokk na ca maanaam ci borom xam-xam yi ñu ne bëgg ca safara wala nga bëgg ca aljana rabiatul adawiya jigéen la di seen moroom bët bu set daana naafila junnee rakkaa ci guddi gi mu ne sax bëgguma yàlla fay ma ko waaye bu ma deewoon sax yàlla dugal ma safara sama yoon newu ci waaye man daal naa ko def rek sagalee ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ëllëgee mu mën koo tiitaroo ci waxin fekk na waaye du sax kuy tiitaru ci yeneen xeet ya ne Moussa Ibrahima indi leen ma seen xeet wi góor gu mën a julli téeméer rakkaa guddi amut waaye kii jigéen rek la guddi gu jot mu julli junnee rakkaa kon xam nga ne jigéen googa jàmbaar la de muy rabihatul adawiya kon nag ku bëgg a wax parité demal seeti jigéen ñi jigéen googa nga jéem ko jéem ci a topp ak góor ñi moo tax mu ne qul wax leen ne araaytum solo leen ma mu wax dafa bëgg waneen liñ ko sante boo déggee mën a xam hamdu fil ula wal axira boo demee ci rimaax bu Seex Omarul Fuutiyu dafa wax ne sant yàlla rek mooy jaamu yàlla goo xam ne dañ ko jaamoo yàlla ci kaw suuf dee dugg aljaana di ko jaamoo yàlla julli li muy foor foor ci kaw suuf la xem buñ xasee dee dootuñ julleeti joxe asaka li muy foor foor kaw suuf aj màkk kaw suuf xor weeru koor kaw suuf waaye sant yàlla di ko bàkk danañ ko jaamoo yàlla ci kaw suuf du dugg aljanna ëllëg continuer di ko jaamoo yàlla moo tax mu ne lahul hamdu fil ula wal axira kon sant yàlla loo xam doole la mook cofeel ñoo xam soppante sopp yàlla danañ ko jaamoo yàlla ci biir kaw suuf dee du dugg jaana di ko jaamoo yàlla jaamu maanaam joomu jaamu yàlla ak cofeel du jeex niñ soppee yàlla nii bu ëllëgee buñ dee dugg jaana loolu day gën a continuer naka noonu tamit soppante ci yàlla kooku tamit du jeex koo soppante yàlla tax nga sopp ko ba ngeen bokk dugg aljanna cofeel googa day continuer dañuy xëy rek def délégation ne nañ seeti suñ soppe ba Cheikh na Ahmad Tidiane siyaara ji ko ñu defaat délégation nañ seeti xaadimu rasul si Ahmad Bamba noonu la ñuy wëree gaa yu baax yi kenn ku nañ dem siyaara ji ko ndax dañ ko soppoon ci yàlla moo tax yàlla ne nañu soppante woon te fekk yàlla taxut ñoom ñoom boo yowmal xiyaamee seen soppante ga day soppeeku ak nooneel ndax kenn ku nekk toroxtaane gi nga nekk ci mbugal da wax ne sama xarit ko teg ki ma toppoon ko teg moo tax alquran ne al axilaau yawma idin baaduhum li baadin aduwun bële fii li nga xam ne tamit moom dañu soppante moo tax mu ne inna ne amanu wa amilu salihat sa yajalu lahum rahmanu wuddan luy sax la loolu ma ngi ci suratu maanaam baqar ma ngi ci suratu maanaam maryama léegi nag yàlla moomu nga xam ne moo xeeyoo ñu sant ko jaamu ko yàlla ci sopp ko ci àdduna jaamu ko yàlla ko ci sant ko ci àllaaxira moo tax nag mu wane lu tax ñu war koo sant lii mu bëgg ñoo defal kenn mënuñu koo defal moom la ci teg nii ci aaya ji te mooy indil guddi suñ demee ba ci kanam mu indi bëccëg waaye bu guddi ñëwoon continuer rek nit ñi nelawaay dana leen rey te danañ mujj sax xii fu ñuy liggéeye bu fekkoon tamit bëccëg moo fi nekk rek da nga dang dang ba xëy dee fooy noppaloo te boo noppaloo doo mën a xëy liggéey ñu déggee ci ne ndeke liggéey yëpp maanaam nelaw yu guddi nelaw yu bëccëg mënu koo remplacer. kaara bi ngay am pour dem war a liggéeyi bëccëg bu guddee nga noppalu soo amee kaaru guddi war a nelaw bëccëg tamit du sotti dana am lu muy jeexital ci sa yaram wi mën naa def ba def sax ñàkk maanaam ñàkk ak wéradi ca wàllu santé foog mu am lu mu ci jeexital ndax yàlla bi ne wa jaal na layla libaasan wa jaal na nahaara maasan kenn mënu koo dindi damaa def ba bëccëg muy waxtu leer di waxtu tàngoor ki ngeen war a fàggu dem liggéeyi ma def guddi muy waxtu noppalu su ngeen ci noppaloo bu xëyee ngeen dem liggéeyi waaye nit nekkul machine machine sax day noppalu boo bëggee continuer ci loola bu yàggee day gaaw a yàqu su ko defee kon nag moo tax mu ne qul wax leen na a araaytum solo leen ma in jaala bu defoon laahu yàlla aleykum ci yéen layla guddi sarmadan mu nekk lu dappetu ilaa yawmal qiyaamati guddi ba pés bis pénci kon man ilaahun ana jën yàlla ci li ngeen di wax xayrullah judu yàlla mu màgg mi yaati ku mu leen indi bi diyaayan ci leer kenn mënu ma in jaala yàlla mu nekk lu dappetu ilaa yawma xiyaamat jëm ba bis penci man ilaahun ana jën yàlla ci li ngeen wax xayrullah judu yàlla mu màgg mi yaati ku mu leen indi bi layli ci guddi tas ku noonu boob da dal fii ci moom afala tubsiruuna lu taakoon ngeen ko ngeen seetantal ko maanaam xool ko xool ak seetantal ba xam ne daal yàlla rek a yàlla moom dong moo man lii su ko defee nag kon moo tax mu ne wa yawma yunaadihim kon su ko defee yàlla moo man loolu moom mooñu ci ci mbaaxam la def mu indil ñu guddi ñu man cee noppalu su ñu demee ba ci kanam bëccëg bi ñëw te li ci gën a yéemu xamuloo fu yàlla denc denc guddi gi fu mel ni ñu ngi ci bëccëg bi fan la yàlla denc guddi kenn xamu ko soo liggéey bu guddi ñëwee tamit fu yàlla denc bëccëg ak bëccëg ni mu yaatoog ni mu réyee ban place la ko yàlla war a denc loola tamit xam nga lu xéemoo xéemu la su ko defee nag nit nag léeg dara day rëy ci moom nekk xéewal gu rëy mais da koy miin a miin a miin ba du yëg ne lii xéewal sant yàlla te xam nga énergie bi tey bi jant bi fu la ko yàlla naroon a fayeeku ci facture foo jëm courant bi gars yi la indil balaa weer dee ñu ne la fukki junne nangam tey bu ñu bëggoon a fay facture jant bi fu ñu jëm problème lay doon boo bëggoon a fay tey facture sa bët yi nga xam ne loo bëgg a gis gis ko maanaam weer de ñu ne la facture bët ak facture nopp ak tànk lu ci aju kon nit ñi danañ sonn te loolu lépp xéewal gu rëy rëy la waaye dañ koo miin a miin a miin ba santatuñ ca yàlla moo tax xukamaa yi di wax ne wér maanaam xéewal la gu nekk ci boppa ñu wér ña waaye ñu feebar ña rek ñoo ko gis fee goo doo xam luy wér di jariñ waaye bis boo xëyee ña entre la mënatoo dara ci ngay door a xam ndeke wér a xam njariñ kon maanaam wér mbaxanaam teraanga mu yàlla solal bopp ñu wér waaye bala koo gaayaa gis ñu feebar ñi rek ñoo ko gis waaye ñu wér di catang-catange fu la neex dem doo xam lu wér di jariñ su ko defee kon yooyu ay xéewal yu rëy rëy la bala ngaa tal naan man oma dépense tey kër gi nangam njëkka la sant yàlla ci mi la jox kartan nga wér te maanaam yàlla mi la def tamit sa cër yi mat rek loola koom-koom la ndax kenn ku ne ki gën a di ci ñun sa benn baaraam bi boo demoon tey nit ne la ma dagg baaraam bi joxe 10 millions doo ko nangu kon woomal nga kon boo amee fukki baaraam yow ndeke kon li nga am mën na milliard sa loxo bi loo doot doot nit ne la ma jox la milliard dagg sa loxo bi doo ko nangu sa tànk noona kon sa organe yi rek koom-koomu boppam la te loolu lépp dañ ko war a sant yàlla di ko ci xéewal yu rëy yi ñuy may moo tax nit bu jëmee ba yeewu fu dute maanaam cëram yi nangu dafa war a sant yàlla maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma dundal gannaaw bi ma rayee maa ngi sant yàlla muy jox ma kàttan ak a nag sant yàlla ci moo tax yonent bi dafa alhamdulilah si ahyaana ba'da ma amatanaa wa yàlla mi nga xam ne moo ma dundal gannaaw bi ma rayee ndax nelaw deegu ndaw rek la muy lancement boo xam ne mën nañ cee déggee dee waaye tamit yeewu tamit euh, maanaam euh, dund gu ndaw la mën nañ cee lancement la boo xam ne mën nañ caa déggee dekki ku yàlla wax ne la da nga dee nga nelaw war nga koo mën a gëm ku yàlla wax ne da nga dekki nga xeewu war nga koo mën a gëm su ko defee kon da yonent bu xeewu waan rek la mu njëkk a sant yàlla rek mooy ca loola doora nag sant yàlla yeneen yi xéewal yi waaye léegi ñun dañoo gëm a gëm a gëm alal bañ jàpp ne alal rek lañ war a sant yàlla boo amoon tey ay milliards te yow maanaam li nga am mënoo koo jëriñoo amoo dara tey ñaata fi am ay milliards amuñ waaye mënuñoo jàllale benn kaasam ndox benn kaasab ruy mënuñu koo jàllale ñu ngi am lu ne gàññi tabax nañ état yu dul jeex mëntuñ caa yëgati ñu ngi yore ay 4x4 mënatuñoo tukkeeti kon ñooñu xamuñ dara su ko defee kon nit ki da sant yàlla bu yàlla wàññee sa benn cër tamit santal yàlla am na ku ñaari cëram yi wàññeeku koo xam ne tamit sa ñaari cëree wàññeeku santal yàlla am na koo xam ne amul tànk amul loxo moo tax daal Omar ibnu Xataab dafa ne yàlla lum ñu teg ci musiba rek war nañ koo muñ te santee ko ñu ne ko lu tax mu ne dogali amul dayo mun a wax ne fii la war a yem ndax fu fu la nattu dal nga ne lii fii laa yem rek maanaam yàlla mën na koo passé ci yow kon ku mënta sant yàlla amut kenn ku ne yàlla defal na la maanaam loo ko mën a sante su ko defee nag ku bëgg yàlla jox la xéewal guy sax gu dul demati del sant ñun nag lii siy feebar yépp li tax li ñuy am ñu koy ñàkk li ci gën a bëri mooy ñàkk sant yàlla la wa qalilu min ibadiya shakur waaye dañu war di sant yàlla ci lépp sant yàlla ci xol sant yàlla ci suñuy cër sant yàlla tamit ci suñuy làmmeñ su ko defee nag kon loolu bu ñu ko amee rek yàlla mën nañoo defal xéewal yi mi ngi continuer di wax nag lam ñu defal maanaam andi fi guddi ba ci kanam moo andi bëccëg waaye na mu waxoon noonu continuer bu ko continuer woon ñu al ko moo tax mu ne wa min rahmatihi tukkeekoo na ci yërmande yàlla wala nga ne wa min rahmatihi ci yërmande yàlla jaala la bindee lakum ñaar leen lay la guddi wa nahaara ak bëccëg li taskunoo ngir ngeen dal fiihi ci guddi wali tabu taxoo ngir ngeen sàkku min fadlihi ci wërsëg yàlla yi maanaam ci bëccëg mu xasaf ko laalaku walaalaku mbasta la yéen tashkuruna ngeen mën a sant yàlla de mu def laffu wa nashrun murattabun ñu jàng balaaxa ñoo ko xam bam ne bi maanaam maanaam jaala lakumu layla wa nahaara dund tudd na ñaar li taskunoo nag mu dellu ci layla ji wali tabtaxoo mu dellu ci nahaara ji bu ko defee kenn ku ne dellu ci moromam muy laffun wa nasrun murattabun aaya jii tegu ci nag moo tax mu ne wa yawma yunaadihim fàttalikul bis boobu yàlla dana xool yan fa yaqulu wax ayna surakaa yi ana ñu ngeen ma doon bokkaaleeg àll xam ne kuntum nekkoon ngeen tas moom mu na ñoom ay yàlla lañ wa nasaxnaa ñi génnee min kulli ummatin ci bépp xeet shahidan aji seede fa qul naa ñu ne haatu andi leen burhaanakum seen lay yi ci li ngeen neexoon fa allimoo ñi xam foofa neen al xaq naka dëgg ci ak yàlla lillaahi aji sax la ñeel yàlla moom dong de wa dalla sànku na anu walis leen maakaanoo lañ nekkoon yaftaroona di ko dudde bu yowmal qiyaamee yàlla mu ne dana hoo xeet yépp ñu toog mu hoo kam yónni woon ci ñoom te mooy yonentu bi taxaw loo wax sa xeet wi mu taxaw wax leeral ca noox ci ibrahima ca muusa ca noona ba ñu jeex bu ñu paree yonentu bi seede leen ne wax nañ dëgg yonentu bi tamit taxaw maanaam seede aw xeetam ña doon wuutu yonentu bi tamit ci xeetam wi di ay wëliyu ci ay xutbu ci ay boromi xam-xam ci ay sëriñ yu ñu topp kenn ku ci nekk tamit taxaw seede ña la toppoon foo leen jëmee kenn ku nekk da nga taxaw wax loola su ko defee nag foofa nag foo leen jëmee wutoon fu doon yàlla yéen ñaar ñëpp da ngeen bokk di joxor bi ne torox kaane gi ma nekk yaa ma ko teg moom mu taxaw ne la yaa ko teg ngeen di jox joxar bi wante kenn ku ci nekk bëgg a bëgg bëgg a xeex ak sa morom da nga wax sa ne ko yow yàlla delluwaat ma maa ñoom rek ñu delluwaat adduna ma joxar bi ko ndeke yow ne ko doxoo tus li ma doon wan dara niwu ci dëgg su ko defee lii nag yàlla ñu ciy xee ñu war cee bàyyi xel waaye su ko defee tamit nag lii lépp dañ ko cee war a jàngee soo nekkee sëriñ ñu topp la seetal ba xam fi ngeen yóbbu li sëñ Abdou waxoon ku la nangoo topp ci wàllu yàlla nga ànd ak moom ku bëgg nekk ci yow bëgg lu yomb nanguut a jaamu yàlla nga jox ko loxo ne ko nañ kitoo demal ma dem su ko defee boo liggéey ngeen man a wàccoo waaye nag nekk ci kër yow jaamuwoo yàlla jànguloo ndax bëri na tey kër sëriñ yu bëri yoo xam ne tey leen booleeg sëriñ ba mooy bool ba li leen booleeg sëriñ ba mooy bool ba bool bu tooy bi rek ceeb bi bu fa ceeb ba nekkatul rek maanaam ñu wan gannaaw loola yëpp dañ ko war a baxi xel su boobaa nag kon ñu ngi lekk ceeb bi nañ nañ leen xiirtal ñuy jaamu yàlla suñ ko nanguut a jaamu yàlla ñu bàyyi leen ñu dem seeti keneen ku ñu mën a ànd ak waaye ànd ak nit ñi ànd ak yow ñu adressé wu ci yow di mooy yàlla loolu lépp nga nekk nga nekk seen njiit ñu la koy bindal te kenn ku nekk ñun li ngay mooy rek doy na suñ bëggee mooy ak kenn teg la ko sa kaw rek problème am te ànd gu bare li ci gën a bëri bool bee xéewal gi rek waaye bis bu xéewal gi maanaam wanee gannaaw rek gaa yi wan gannaaw kër ga du jeex aaya ji tegu ci aaya ju yéemu la muy inna qaaruna kaana min qawmi Muusa na ci nit yonent yàlla Muusa yi la bokkoon yàlla jàngale histoire am ñu war cee jàngee lu bëri nit ku beew la woon kon Moussa kenn ëpp ko responsabilité gannaaw Seydouna Muhammad ak Ibrahima ndax moom yàlla da koo yónni woon ci ñaar ñi gën a beew ci kaw suuf muy wane ne lii tax nit di beew ñaari yëf la ki gënoon a beew ci kaw suuf mooy Firawna yàlla yónni ko ci Moussa yàlla yónni Moussa ci Firawna lu ko taxoon a beew daraja ndomba tànk keneen ki beew di Qaaruuna lu ko tax a beew alal kon ñaar ñoo gis ñu yàqule ci àdduna bi boo toppee seen tànk yi ñaar la gëm ak pouvoir gëm ak daraja gëm ak ndomba tànk tabaarakallaahu yëkkati ko foo fu ne mën la faa yóbbu li nga manqué lépp nga bëgg koo mottali ko ci an ndomba tànk su ko defee loola moo dal xaaru moo dal maanaam firawna ndomba tànk googu mu gëmoon ci la topp ba alku war a dem safara la mu amoon du ko jëriñ dara xaaru na timit alal ju bëri ji ko yàlla jox moo ko jayoon mu dem a dem ba xamatul boppam xamatul nawleem ba mujj beewu yàqule xaaru na mii ci ak bewam moom Muusaa ñoo bokk ci nga xamee ne mbokk jëriñu dara bokk fu ngeen jëm rek moo am njariñ su ko defee gis nga Qaaruuna mii moom Muusa seen ñaari baay ñoo bokk benn baay doomi baay taxu Muusa la kon gis nga ni ñu jegeexee ñenn ñene doomi tàntaam la waaye wax ji gën a wér daal doomi baay taxam la yàlla nag defaloon ko mu mu bëri mu nekk koo xam ne ku bari alal la bëri alalam ga mi ngi ko jëlee ci li ñuy tuddee xam-xamu kiimiyaa dafa amoon xam-xamu kiimiyaa yaakaar naa la moom la ñu wax chimique ku ko mënoon la loolu boo ko manee mën ngaa jël suuf si def ci li nga ciy def léegi mu soppeeku xaalis nga jël léegi lu la neex mën nga ko soppeeku yonentu yi nañ ko def yonentu yëpp amoon nañ ko yonentu bi xam nga ne bu jëlee euh, waa jële di ukaasatu doon xaree ca xareb uhud jaasi ja damm mu jël benn cëg ak ma jox ko ko mu soppeeku jaasi dara la xam-xam la ak yeneen ak yeneen ba mu jëlee keroog bi maanaam euh, euh, kële di kuñu moom Ah, di kuñ moom kële eh, Bilal ah, dëkk fële ñëwoon de dafay Salmaanul Farisi fekk ko Madinatu Munawwara ne ko damay njotoo ndax damaa bëgg ànd ak yow te xare yu bëri maa ngi koy tardé te dama bëgg tabaarakallaahu xare boo wootee mu fekk ma fa yooyu mu ne ko demee nga wax sa sang ngeen jotoo sang ba ne ko danga may jëmbatal ñetti téeméeri taatu tàndarma mu ñor nga witt ko teg ko sama kanam jox ko tamit wax ko wurus bu bëri dana mat maanaam fukki nu daar ak ñaar yonent bi ne dimbali leen ma yéen sama mbokki mbokki saxaaba yi ci wurus lu waaye am na andi gaa yi dajale lañ am lépp mi ngi tolloog nen ci poids nenu ganaar te kooka lañ wax ne moom lañ war a peese ëpp na 30 kilos yonent bi ne ko demal mu peese ko lu ci des nga indil ma ko mu dem yóbbu muy peese muy daanu muy peese ba ëpp 30 kilos mu indil la des yonent bi loola xam-xam la su ko defee tamit mu jël tàndarmay tàndarma boo ko jëmbatee gudd fan mooy tax nga lekk ca meññant ma mën naa am juróom-ñaari at moom mu jëmbat ko ci at mi tabaarakallaahu mu màgg ci at mi tóntóor ci at mi meññ ci at mi ñor ci at mi ñu witt ko ci at mi salmaan gore ci at mi loolu yonent bi def ko ci benn kii Omar moo ci jëmbatoon genn taat tàndarma googa moom rek moo ci dee maanaam màggu tom maanaam fekkut kiiwu yonent fekk yonent dafa ne gas leen rek bàyyi ma may jëmbat Omar moom sonn na jëmbat benn waaye bi bi Omar jëmbatoon moom am na wuutee ak yële yu Omar nag ne ko damaa foogoon ne jëmbat rek jëmbat rek la ñuy def boo ko foogu moon da nga ciy def la nga def su ma xamoon da def la nga def ma bàyyi la nga jëmbat yëpp kon loolu xam-xam la kon loolu tamit di xam-xamu kiimiya mag ñi am nañ ko gars yàlla yu bari daanuñu wuti dépense da ngay ñëw wax la ñu ne oh, yëkkatil jaada bi def nañ la ñuy def du duñ jeex nga maanaam nga ñëw fekk fa xaalis ba nga ñëw tamit jeneen jaay alal ñu def la ñuy def nga gis ko nga gis biee yu ñu rek yu ñu ransale yi mu bëri lool waaye nag léegi ñi woote ak tabdil tabdil tamit tab daw rek moo ci gën a bëri moom ñi koy woote mën nañ cee nax lu bëri war na mën naa laa soppil wax la ko xaalis kay mënee soppi moromam jëlatu loolu koy boo xam ne xar jërul dem fenn jox ma sa 10 million yi ma defal la ko 30 millions waaye ma ne 10 millions buy remplace 30 millions daf ko gën jarul dem fenn loolu jërul jàngi sax danga war a xam xel rek waaye waa ja koy def ñaareel mat la rek lay yor du dëkk fenn yore numéro portable yu bëri tey nga woo ko ci bii ëllëg nga jot ko ci bële su amee lam bëgg rek ca loola ba wan la ba nga xam ne jaar naa yow fam jaar rek jël mat la ba arrêté benn taxi daw loolu nax nañ ci ñu bëri may déglu su ko defee kon kiimiyaa bi yàlla mayoon nit gaa yooya gaa yi di ko doonante ci gaa yi yàlla yi Cheikh na Tidiane amoon na ko boo bokkut ak tabaarakallaahu li nga xam ne ni mooy mooy li gaa yi di am tay te mu bari lool jaar fi rek ndax nit ndax nit ñi seen xaalis bëri na ci torop su ko defee nag moom la moom la maanaam Qaaruuna amoon ñett ko ko jàngal ku ñuy tuddee maanaam Yuusuxu jàngal na ko benn côté bi Yuusuf ibnu Kaalib jàngal na ko jàngal na ko ci dara yonentu yàlla Moussa tamit jàngal ko ci dara ak maanaam euh, moom nag mu weddi ñooña ne xam-xam bii ma am maa ko jàngal sama bopp kenn xamulu ma ko bari woon alal alal ja bari lool ba nga xam ne caabi coffre-fort yay ubbi yay ubbi alal ja rek nekkoon na ñeenti téeméeri junney caabi caabi yi caabi yooyu ñeenti téeméeri ni ñoo si doon liggéey maanaam ñooy xenu caabi yi xam ne dara du seen liggéey xenu caabi yi rek ñeenti téeméeri maanaam ñeent fukki nit su ko defee nit ku nekk moo yenu fukki junney caabi fekk na nag yett na ko ci wen gu ñuul mu diis def na ko ci wurus def na ko ci xaalis mu diis mu gi sax dafa mujj soppi caabi ya ci maanaam bant def ko bois kon kooka alalam kenn xamul ni mu tolloon alalam ju bari jii nag jàpp ko jay ko ba mu bew ci kaw Moussa fekk Moussa toog sama borom wax yu ko ne ko waxal sa nit ñi seen yëre yu ñuy woddoo nañ ci def ay ay ay ay wëñ wëñ yoo xam ne dafay bula comme asamaan si mu ne ko loo jublu mu ne ko damaa bëgg bu ñu xoolee wëñ wëñ yooyu ñu fàttali ko ci asamaan si man see fàttali ko téere bi di tawreet bi nga xam ne dama ko wàccee mu bàyyi ko ci asamaan ñëw ci ñoom ñu mën a jëfe ndigalee bàyyi tere ya mu ne ko kon tey su fekkee loola naa leen far wax rek ñu far woddoo yëre yoo xam ne day bula ndax seen xel gën a nekk ci asamaan seen xel nekk ci asamaan nekk ci téere bi te yooye yooyu yëre yu xeebu la bu doon léegi nga ne mooy perkaal patron yi duñ ko nangoo duñ ko nangoo sol Moussa ñëw digal leen ko gaaya sol ko xaaru na nag ne lii yëre baadu la man duma ko sol dem jënd yeneen ay brodé jënd ay gañi laa yeneen yu si nekk yére yi rafet lool mu sol ko nag moom di tiitaru ci kaw nit ñi saa yu la yàlla joxee xéewal am ñu la topp waaye xéewal ga rek a tax li ma la wax mooy bool bi rek gars yi topp ko ñu ko toppoon ëpp na juróom-ñaar fukki junne nit ñuy contre Moussa Moussa yónnee ne sama borom wax ne asaka génn leen asaka mu caaj alal ji moom sax Moussa dafa defoo ak moom ci li ko boromam digal ne ko moom fu maanaam fukk maanaam junney dinaar yu ne benn dinaar xam nga bu doon asakaay Moussa ci moom li alal jaa bëri tax yàlla nangul ko loola moo doon ñoom seen alal rubu maa lañ daan génnee boo amee ñeenti million benn million 40 millions 10 waaye xeetu yonantu bi rek moo ñëw tey ngay génnee million bu ne 25000 kooku boo ko calculer daanaka maanaam di millions yi du doon dara kon gis nga loolu ni mu yombee moom nag mu ne ko yow junney dinaar bu ne benn dinaar junney dërëm bu ne benn dërëm mu calculer ko mu jox ko million yu bëri mu ne ah lii du ma ko def dafa bëri lii daal du dara mu wax gaayam ne leen yéen da ngeen commencé topp Moussa mu laaj leen seen alal yi waat naa ci yàlla bu ngeen continuer ci topp ko seen seen bakkan la leen laaj gars yi ne ko yaay suñ kilifa loo wax rek wax nañ ko yow daal ñu ngi sa gannaaw comme li xew rek comme waa ji yor na alal dootul lu mu waxati dëgg la bu tisoolee gars yi ne ko yoo xam ne ko waa mu ànd ak gàngooram gi ne ko yaa nekk ci dëgg yow la ñuy déglu suñ yoon si Moussa mu ne li ma gis daal mooy Moussa lëjal nañu nañ ko tilimal ba nga xam ne ñu koy déglu dañ ko suuxlu nañ ko tilimal nuñ ko tilimalee mu ne dama jël benn jigéen goo xam ne jaaykatu boppam la ma fay ko alal fekk dafa ëmbu ma bàyyi woo Moussa mu def waaraate ba ca digg ba Moussa ñëw di waaraate ne sama sharia bii képp koo xam ne danga dangaa mooy takkuloo soxna téeméeri yar boo takkee soxna dañ laa war a rey xaaruna ne ko ba ci yow mu ne ko ba ci man mu ne ko banu Israël gi yëpp day wax nañ ne ndaw sii li mu ànd ak ci yow la bàyyee ko xoolal wax ju ñaaw jooja ana si ndaw si ñëw xarun ne ko waxal bu ko defee nag ndaw si taxaw ne ko man de sama mooy yàlla gii ma mooy doy na ma sëkk yàlla jéggal ma ko daw walis si may taqal ab yonent toob yàlla xaaruuna moo ma fay alal ju bëri wax ne naa la taqal sama bopp waaye man xaw ma la Moussa ku tàng la dafa mer a mer a ba borom xam-xam yi nee nañ mbaxana ma maanaam kaw kawar gi dafa mujj bëtt mbaxana ma ku tàngoon la mer nag ñaan yàlla ne ko yow yàlla su fekkee sab yonantu dama lay ñaan nga merle ma yàlla ne ko merle naa la suusaa ngoog jox naa ko ndigal mu ne ana ana gaa yi ànd ak xaaruna gaa yi na ñu ngi nii ñu ne yéen ñi ànd ak xaaruna fekkee leen fële xaaruna yéen ñi ànd ak man ñëw leen nii juróom-ñaar fukki junne nit ñooña ñëpp jàmbu xaaruna ba mooy ñaari nit mooy li la waxoon nit ñi bu neexee ñi ànd ak yow fekk ceeb baa ngi tooy bu naqaree ñi wan la gannaaw ñaari ñit doom ñoo ànd ak moom wan nañ ko gannaaw yàlla musaale suuf wanal ma ko suuf si wan ko ba ci dajoor yi mu ne suuf wannal ma ko suuf wann ko ba ci wóom yi mu ngi yooxu ne ko yow yàlla yow Moussa dimbali ma ngir yàlla maa yow bokk maa yow ñoo bokk benn bàyyi suñu bàyyi bàyyi suñu bàyyi bàyyi sama bàyyi doon bàyyi tax nga dimbale ma ngir yàlla dimbale ma ngir yàlla di ko yooxu di ko jooy ña ko ña ko ña ñu tamit topp ca seen xol ya ndeysaan xam nga nit ñi bëgguñu koy néewal doole nit ñoom tamit ñëpp seen xol ya yëngatu dimbale ko Moussa jéggal ko wax na Moussa jéggal ma jéggal ma ñeen fukki yoon ñeen nga ne juróom-ñaar fukki yoon Moussa xol ba dëgër rek mu ne suuf war na ko suuf di ko war na ba kenn gisatut ko Moussa nag sama borom ne ko Moussa yaa dëgër wallaahi Qaaruuna mii li muy def lu muy rëy rëy man mii su ma waxoon ne ma jéggal ma benn yoon rek ma jéggal ko yàlla baax yow ñeent fukki yoon mënoo koo jéggal ko defee nag maa ngi lay waatal ne nag tay tay laay gëj a jox ndigal yow ci tay laa lay gëj a jox ndigal ci suuf boobu la ko yàlla gëj a jox ndigal ci suuf waaye nag yàlla joxaan na ndigal yonantu bi Seydina Muhammad kenn du moom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox na ndigal keroog ba mu demee na ma ngay rañaani ah, jële di xéeféer ba fekk waa màkka dañoo dajee ñu ne nañ teg téeméeri gëlëm maanaam ku ñu andil boppam yonentu bi yaa téeméeri gëlëm yi ku andi bopp aboubacar bi yaa moom téeméeri gëlëm yi ku andi seen ñaari bopp yi yaa moom ñaar téeméeri gëlëm yi loolu la tuddee ci fuqaaw yu joxal joxal bu ñu ko waxee mooy loo xam ne bu jëf ja sottee ñi fay waaye boo defoon ba sonn te jëf ja sottiwut doo fay dara teen baa ngi nii gasal bu bënnee ma jox la téeméeri junne bu bu bu maanaam bu gasoon juróom-ñeent fukki meetar te benn ndox génn doo ko fay dërëm day perte. gaa yi nag ñu ne leen kon nag dem leen ngeen ku indi bopp bi rek yaa moom loola. gaa yi départ nañ di ko dabi ci la nag maanaam benn yéeféer booba yéeféer la woon ndeysaanam jug ne moom tibit mu ngi dabi maanaam yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw a ñëw ba tëgg mal yonantu bi rek ak naaru góoram yonantu bi ne suuf téye ko yàlla joxoon na ko ndigal suuf sa téye ko ba ci wóomi fas yi. ndeysaanam mu xettali ko yooxu ne ko jéggal ma ngir yàlla ma ba ma baal ma yonantu bi baal ko kenn du yonantu bi mu départal ba wane gannaaw xelam dagar xaalis bi dafa bëri di gëlëm un million gëlëm huit cent mille ñaar téeméeri gëlëm mu dëppaat dëppaat dana dem ngay dabiyaat yonantu bi yonantu bi ne suuf téye ko suuf téye ko ba jumba ko fas wi di bëgg laal suuf mu yooxuwaat xettali ko ci yonantu bi ne ko jéggal ma ngir yàlla dootuma la dab waxuma la dab de waaye képp ku lay dab sax su ma leen dajee ne gaa yi nekkoo fii yëpp bu ma ci yem sax de waaye maa ngi lay waatal ne ànd naa ak yow ci sa diina ji ashhadu an laa ilaha illa wa annaka mu tuub abu lahab moom moom ku ah, abi hakam ku ñor la ba mu yëgee ne ah, maanaam suraqatu dem na dabi yonantu bi rek la ne ay kooku ñàkk nañ ko te yonantu bi woon ko dig bi diwu bëccëg kooka kay ñàkk nañ ko yéen ñii kay laay wax bu leen fexe ngeen ngeen bàyyi li ngeen nekkoon waaye moom ba mu ñëwee waaw naka mu ne hee la ma yonantu bi woon bu la ko waroon li ngay dëgër dëgër da nga tuub ci biir suuf si yow aba hakam kon da nga xam ne kii yàllaa ko yónni lay amut ci amul werante kon kenn du yonent bi kon gis nga Moussa li ko waa ji def ba mu ko jéggaloo mënu koo jéggal ngir dëgër waaye gis nga tamit maanaam yonent bi bi ko waa ji defee da ko ne ko jéggal ma kon kenn du Seydunaa Muhammad ci mën a jéggale Xaaruuna nag léegi nag labal nañ ko suufoon na ko téere yi ne nañ bët bu set suuf dana ko wan lu tolloog taxawaayam nit bis bu demee ba yegg ci juróom-ñaareeli suuf ci lay bi door tukki fu ne bu set suuf a nga koy ci biir nga xam ne kon bañ nitu yàlla baaxut tuumaal lu bon nitu yàlla baaxut yëkkati sa làmmeñu bon wi di ko teg ci nit ku baax ci yàq deram baaxut moo ko yóbbu xalkande googa moo tax ñu yàlla not ci nit yël seen làmmeñ yi di xas nit ñu baax ñi bala ñoo dee suuf war na leen lu leen suuf di war ne mooy ñi ngi fi waaye kenn xamul leen li ñuy def tamit dara mënu ci fés danañ sonn dafay pexe yu nekk alal ju dul jeex ci naxasaay rek lay mujj kon nit ku baax saa yoo ko bañee takk say rajo wala ngay wax wax ju ñaaw bala ngaa dee suuf wan na la ni nga wàññee na su ko defee tamit nag gaa yi nekk fa ñaaw làmmiñ du jot ci àdduna bi ah ne ah dara taxul mu jël suuf wan ko rek alalam ji la bëgg a tëdd rek xam nga nit ñi seen wax ju ñaaw ji xaaru na mi daa xalam ji fi bàyyi la Moussa bëgg a tëdd rek Moussa ne yàlla wanal wanal wanal na ko na ko alal ji fekk alalam ji lépp tamit yàlla maanaam suuf si wan ko moom tamit ci la mujj maanaam alku xaaru na mbiram jeex na moomu nag bu la yéem dëkk boo dem xaaruna yaa nga fa duñ jeex xaaruna yaa ngi fii ci ndakaaru xaaruna yaa ngi ci réew mi xaaru na yaa ngi ci réewu àdduna yëpp lan mooy lan xaaruna mooy ku beew beew goo xam ne dana la yóbboo ci def juróom-ñaar juróom-ñaar bi ci njëkk mooy ngis ngistal di wanewu di wanewu di sol yére yu foor di sol yeneen yoo xam ne tabaarakallaahu loola kon du fi jeex ci réew mi ñaareel bi tamit xaaruna mooy lan mooy koo xamee ne ni gannaaw bi nga xamee ne tamit euh, maanaam yàlla jox na la alal nga koy foyee xam nga foyee alal mënta paase jël sa buntu yi di ko def bunti oor sa buntu kër gi def ko bunti or bunti wurus nit ñaa ngi xiif ñi ne ñuy tey danañu beew ba am kuddi wurus ñeen ñu am kuddi xaalis ñeen ñu seen robinet ya ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon maanaam loolu lépp fooyee alal la kon fu ñuy fooyee alal rek kooka xaaruna la xaaruna ngi fi lan mooy lan mooy su ma ne maanaam euh, caabi am ya juróom na maanaam ñeent fukki junnee caabi loolu du dara mooy compte banque yu bëri rek ak milliards yu bari kenn nit am lu mat ay compte yu dul jeex fukki compte ñaar fukki compte juróom-ñaari compte nangam nga jël tamit milliards yu dul jeex def ko ca compte ya loola mooy xaaruuna rek te yooye compte yu bëri yooye tey boo doon gësam seen mbokk yi am na ñu leen jege bu ñu añee duñu reer suñ ndëkkee duñ le duñu reer ñeen na ngeen ñu ngi romb jàkka yu payewul ñeen ñi romb daaray alquran yi ñuy romb tamit tabaarakallaahu ndongo daanere yi ña ngay yalwaan mënuñ ca dara ñoom ñu am alal ju dul jeex ko caa def kon maanaam xaaruna nga nen xaaruna mooy lan mooy tamit taqal nit ku baax am na ki ñoo xam ne seen seen seen gëm ak seen bëgg-bëgg lépp képp kuy wax nit ñi lu leen jariñ di leen yee ñu ne nañ ko taqal bu ko bu ko kenn ta mënta déglooti nañ ko taqal ci alal wala ñu taqal ko ci jigéen wala ñu taqal ko ci dorog mën nañ laa topp ba nga tukki sa saak ñu fexe ba def ca ba def ca dorog gars yi vérifié la nangam ak nangam fekk dara amu ci mën nañoo ñëw tamit taqal la ci jigéen photo la tabaaraka laa wala ñu taqal la ci alal lekk na fii lii def na fi nangam ba kooka bu waxatee kenn du ko déglu ñaata ñoo fi taxaw di taqal sëriñ di wax ci nit ñu baax ñi loo xam ne ni lu bon la di lañ ko tuumaal ci yeneen ak yeneen ak yeneen kon pas-pas boobu kum nekk ci yow rek ba tey maanaam sa jikko mooy xaaru la léeg-léeg nga gis nag taqal ku nag ku neex a taqal koo xam ne dafa taq nag ci dara bañ taqal ko nekkoon fi di coow ñu foo ne dafa bëgg réew mi intere réew mi lay lay coowal fekk boppam rek gaa yi mujj nañ ko film ci yenn yi ci jigéen wala ci alal coow li bëri ñu wan ko ko ne ko ah boo fii wax ñu ko jàll ci télé bi mu mujj soppi discours bi waaye dama ne li ci dëkk bi yéen ma ko gën a xam xam naa ndooy baan xam na li ci dëkk bi cey li ci dëkk bi li ci dëkk bi kenn mënu koo wax moo tax mu ne inna qaaruna naka naa kaana nekkoon na min qawmi Muusa ca niti Muusa ña fa bakaa bew na alayhim ci seen kaw waa tey naaw joxoon nañ ko minal kunóosi ci ndàmbu maa ndàmb yoo xam ne inna mafaatixahu naka caabi ya koy hubbi la tanoo u dana diisal bil usbati ci mbooloo ibnu abbas ne mbooloo ma mooy ñeent fukki nit ñu daan xenu caabi ya ulil quwati yay boromi kartan moo xam ne borom doole lañ id qaala ba waxee lawoo ñaan ko xaw ma woo nitam ña te Muusaa ca jiitu woon ne ko laa tafrax bul saata gaay inna laa naka yàlla laa yuxibu du yool farihi nañu saata gaay ñi yoole alal foog ne ñàkkoo dara sa compte yi mën a war na laa mënal lu ne kon nag lii yàlla bëggut ko wa bu taxi na nga sàkku fii ma ataaka laaw ci li la yàlla jox addaara kër ga al aaxirata gu mujj defal ci li la jox nga delloo ko ci yàlla ci jaamam yi waaye walaa tam sa bul fàtte nasibaka sa cër bi a ne duniyaa ci àdduna wa axsin na nga rafetal jëmee ci jaami yàlla yi ci sarax leen dimbale leen kama axsana allaahu nekk la yàlla rafetale ilayka jëm ci yow walaa tabaxi bul sàkku alfasaada ak yàq fil ardi ci suuf inna allaha naka yàlla la ko Muusa laahe biir ne jëlal sa alal ji nga delloo ko ci yàlla yàlla fay la ko ëllëg kon ñu yore ne ko ci compte banque yi tekki leen ko jox ko jaami yàlla yi yonent bi benn bis dafa toog ci feebaram mu métti rek mu fàttaliku juróom juróom ñaari dërëm yu mu fàtte woon rek mu ne Aïcha gaawal jëlal ma juróom ñaari dërëm yi balaa yàlla jël sama bakkan su ma demee dajeeg sama borom bàyyi sama gannaaw juróom ñaari dërëm am ñu ko soxla woon xiif joxuma leen ko nu may wax yàlla kon yow boo dee bàyyi fi ay compte yu dul jeex foo jëm boo demee looy wax yàlla sa mbokk yi xiif amul luñ lekk nit ñi nekk ci jafe-jafe nangam ak nangam foo jëm mu ne ko nag fexeel ba li ngay jiital ci yàlla na ëpp li nga dese waaye nag li ngay jiital lu mu bëri bëri bul ne sa bakkan bi am na àq sa soxna yi am nañ àq ci yow sa mbokk yi am nañ àq ci yow moo tax ne ko laa tan sa nasiibaka mina dunya ndax wax joo xam balaaxa xam nga loo gis ñu koy fàtte lu néew la mosoo gis nit ku génn ñu ne ko bul fàttee sol sa mbub mi mbubbu kenn du ko fàtte kenn du génn ñu ne bul fàttee sol sa tubay ji tubay kenn du ko fàtte waaye nag lu tuuti mën nañ ko fàtte mën nañoo dem fàtte mbaxana ñi fàtte kaala ñi fàttee weer ba ci montor mun a jàppal àdduna muy montor wala muy weer a muy kaala wala muy mbaxana dégg nga de nga jàppee la ca des lépp nag la nga war a def ci àllaaxira muy mbub mi nga war a sol pour génn kon nag jiital la loola mu bëri waaye nag bul fàtte mbaxana mi bul fàtte yóbbuwaale mbaxana mi nag ci man cee dund ak sa mën cee dundal sa njaboot a xam balaaxa mu ne kon bul fàtte sa cër bi nga war a am ci àdduna bëgguñ li nga am lépp nga def ko ci yàlla nag ba amoo loo lekk waaye desalal nag loo xam ne da nga mën a kii waaye tamit nag bu fexeel tamit ngay lexel ñi nga xam ne lekkuñu mu ne kon ni yàlla rafetalee ci yow rek rafetalee ko jëmee ci nit ñi bu la yàlla may weccat del saraxe weccat bu la yàlla wërsëgal kayit del saraxe kayit bu la yàlla jox xaalis bu bëri nga am loo xam ne téeméeri junne un million nangam del maye par cinquante mille waaye nit ku ne ni nga toll nga war a maye waaye nekk fi yàlla jox la alal ju dul jeex nga taxaw ci fooru si romb gaa yi gaa yi saraxu ñi cër yi manqué ñi amuñu dara kayit boo génnee ne baaxut nga xool bàyyi dix mille njëkk laa nuyu nga ne ab ah bii baaxut de xëya génnee waat 5000 génn nga ne bii baaxut de 2000 génn nga ne bii baaxut 1000 francs génn nga ne bii baaxut ca ngay nekk ba 500 génn nga ne baaxut loolu mu ngi joxe juróomi dërëm wala fukki dërëm xam nga ne loola kon xéemu na waa ja def na ko nekk koo xamee dafay yelwaan amul dara ndeysaan waa ji yàlla jox na ko alal mu yëkkati xaalis bu bëri maanaam lu mel ni 10 000 ne ko jox ma weccat jël ci ñaar téeméer jox ma weccat bi mu ne maa ngi xéem yàlla mi la jox ba xamoo weccat man mu ñàkkaloon ba xamul ma la weccee yàlla mooy karim <laughs> kooka xam naa boo xamoon xel na ko jëlal lépp far benn yoon waaw moo tax mu ne ko wa taxi na nga sàkku fii ma ataaka laaw ci la yàlla jox addaara kër ga al axirata gu mujj ga waaye walaa tan sa bul fàtte nasibaka sa cër mi ne duniyaa ci àdduna wa ahsin nanga rafetal jëmee ci nit ñi kama ahsana naka la rafetalee laaw yàlla ilayka jëm ci yow wala tabxi bul sàkku al fasaada ak yàq fil ardi ci suuf inna laa naka yàlla laa yuxibu du yool al mufsidina way yàq ñi de xoolal li xoolal laahi bir gi ni mu waaye xoolal li xaaru na tontu qaala qaaruna ne innama utitoo ndaal naka joxeef na ma xalal ji xalaa ilmin mbir mu muy nekk ci xam-xam mi gu nekk ci man sama xam-xam moo ko jox dama ko mérito yàlla dafa xam ne mérito naa xalal mu jox ma ko ñu na ñàkk rek mu jox leen ko yàlla nag di ko wax ne alam ya'lam xanaa xamu ana laa naka yàlla xad ahlaka na min qabli yu ko jiitoo min quruni ci ay maas man ñoo xam ne hoo ñoom asadu ñoo gën a tar wala man koo xam ne hoo moom asadu moo gën a tar min wu ci moom a wala yu salu deeful laaj mu jëri mun a kàccoor ya an fu ma bi wali seen bàkkaar ya day bëri ba jërul leen laaj le ko dafay bëri tamit ñaareel ba dañ leen dañ dañ dafay dafay fës ñoom dañuy màndargaw ba jërul laaj leen su ko defee kon nag Moussa kii kon xaaru nangoog ñaari nga ca desoon ci àdduna bi mooy weddi njekk ku man dara dañ laa dimbale ku xam dara dañ laa dimbale saa yoo demee ba xam nag taxaw fa gës dënn kenn xamalatul ma maa xamal sama bopp yaa ngi dellu ci xaaru na yàlla jox la te ko xam dañ laa dimbale nga fëgg sa dënn li ma xam maa ko may sama bopp nangam ak nangam dañ laa maanaam xamal ne tamit dellu nga ci xaaru na loo am tamit foog na sa diplôme moo la ko may wala nga foog sa juddu moo la ko may wala nga foog ne sa pexe moo la ko may wala sa mën a lijjanti moo la ko may dellu nga ci xaaru na kon dama ne xaaru na du fi jeex suñ ko doon jëm bu ñu ko doon maanaam càmbar dana bëri tey ñoo xam ne ñu bëri tey xaaru na lañ ci ji jamono ndax alquran du nettali loo xam ne dafay valable ci jamono yépp waaye du wax loo xam ne jamono ji rek la gese suñu bokk léegi na fi ko yàlla alage moom lay wax si ni bisu samedi rek mu xëy génn gàngoor ga wër ko samedi la woon mu war bax la boo xam ne dafa xëcc xëcc mooy lu am lu ñuul ak lu weex ndeysaanam def ci teg teg ak wurus gaa yi wër ko sol yëre yu rafet fas yi nga xam ne tamit ñoo ko waroon matal na ñeenti junney fas ña ko toppoon tamit ci yenn yenn xeeti waruwaay yi ci mbaam yaag bax la ya mën na ñeenti junne jéebéer ya ko doon wër di ko tagg di ko bàkkal say maam sa juddu bi xam nga nit ñi rek boo amee géwél la log yi wër la sa maama ko liggéey sa nangam ak nangam doo xam nit ñi mën nañoo gonfale ku ne ñoo gën a aay ci nit ki samburaayar dañ la wala wala wal ba nga xam ne da nga foo ne fees nga néeg bi fees nga àdduna bi boo leen xamu rek kay sànku su ko defee lu la ñuy wax la ko te dañ lay wax muñ ca dara suñ la wanee suñ la wanee gannaaw saaga la soo leen wanee gannaaw ñu wax la lu bon su ko defee tamit maanaam ñu wax wax ju mel noonu ci moom gaayee nag topp ko keroog samedi booba ci biir suuf la fanaani ndeysaanam nag keroog la Moussa ne yéen ñu ko topp ñëw leen ànd ak moom yéen ñu ko topp wane leen gannaaw ñëpp wan ko gannaaw ba mu ñaari nit ñoom ñaari nit ñooña ak moom yàlla bool leen labal leen ci biir suuf moo tax alquran ne fa xaraja génn na xalaa ala qawmihi ca nitam ña fii siinatihi mbir mu muy nekk ca taaram ba xaala wax la si nañu nga xam ne yuri doon dañoo bëgg alxayaat dund ba duniyaa bu jage gi mooy nitu àdduna ña ñu ne yaa layta lanaa xellante woon na ñeexal ñu misla maa uutiye kem loo xam ne joxees na ko xaaruna xaaruna innahu naka moom xaaruun la du xasin borom ko wanee àdduna rek mu màndi gaa yi romb rek karwaan bi yobbu la gaa yi kar karwaatu maanaam jaaxan ca gannaaw katkaar yaag safoor ya mu seddu guy nga ne waaye la gaa yi rombee karwaanu xaaruna bi rek nitu àdduna yi ah ñun de lii waroon nañ cee bokk waay waaye keroog ba ñuy labal ah, xaaruna ñu ne yee ñun buñ ci bokkoon musiba am àdduna tamit noonu la mel moo tax mu ne wax waqaala wax na la si nga xam ne uutoo joxeef na ne alxam ñu xam-xamu sariya ñu ne way la kum xoo naa seen toskare sawaabu laay payoor ak yàlla xayrun moo gën li man amana ñal ci koo xam ne gëm na wa amila mu jëf saalihan jëf ju baax wala yu laqaaha du dajeeg payoor gu màgg googu di aljana ila saabira ñu ne way muñ ñë ba topp yàlla muñ ba baxi mooy yàlla fa xasaf naa labal nañ bihi ci moom wa bi dayrihi ak alalam ja xas labal nañ ko maanaam al arda suuf fa maa kaana nekkul ko min fi atin ci benn kuréel yansuruunahu boobu na ñu dimbale ko min ko dul na mbiram jeex na su ko defee nag yàlla des nag commentaire nit ña dara bu xewee na nit ñoom fa des nag nañ gisee nuñ jàngee ñu ne hee ñun ñu ngee joxoon comme ni mel de musiba am day dal nit léeg-léeg nga ñee koo xam ne boo waxoon na moom ñeewul boppam wala léeg-léeg nga ñee koo xam ne boo xamoon fu muy mujj danga nga koy yërëm dal na maanaam benn benn benn jigéen dafa bokk na ci ñeenti liir yi wax dafa waa ji dafa boot doom ji rek gaa yi romb ko cortège bi ndeysaanam mbiti mbiri àdduna ba rëy kàngoor ga rëy mu ne waay waay yow yàlla yàlla nga def sama doom ji mu mel ni kii doom ji ne yow yàlla yàlla boo nangu sama naan sama ñaanu yaay gi ñu rombaat beneen waaye ñu ngi koy dóor ñu ne sàcc la dóor ya métti mu ne yow yàlla yàlla nga musal sama doom gi ci kii mu ne yàlla naa mel ni kii doom ji firi ko ne ko kii nitu yàlla la dañ ko tuumaal ak sàcc mu koy nëbboo waaye ca waa xadara ba la bokk mu ne ko kii tamit nga romb tabaarakalaaw gaa yi wër ko gàngoor gi wër ko di ko jay bu te soo la ñu ne laa lu mu wax ñu ne ko dëgg la nga romb ko ba tax nga ne cey waay maa ngi lay waatal na ci way yaay rek lay mujj ci ay dóor su ko defee nag yaay ja yaay ja xéemu ashaabul uxdud amoon na benn liir bu wax mooy waaja ba mu ñëw di lakk nasaraan ya ku ñëw mu la lay lakk ngir liñ gëm yonentu yàlla Isa ñu dema dem benn jó benn jigéen bu boo xam ne dafa boot doomam mu dema dem bay bëgg dugg ci safara wa rek xalaat doom ji saanam ak xalaat dee dafa métti mu bëgg a retourné doom ji ne ko dugal maak yow ci safara wi yàlla taawuñu soo muccee ci safara wi da nga dugg ci safara wi yàlla wi nga xam ne du fay mukk te bii day fay ñoo ngi la yàlla ne qutila ashaabul uxdud annaaru zaatil waquut kon ñu bokk nañ ci liir yi nga xam ne ci seen ak ndaw lañ wax moo tax mu ne wa asbaha mujj na allazina ñi nga xam ne tamannaw mbébétoon nañ makaanahu place ab xaaru na ba am si ki témbu yaquluna ñoom ña ngay wax ne way ñun de xoo nañ maanaam xéemal way xéemal ka anna laaha naka yàlla yabsutu mooy mooy tàllal risqa wërsëg li man yasaaw ñeen ku ko ko soob min ibaadi ci jaamam yi wa yuqadiru mooy ba tey maanaam moom yàlla mooy xatal wërsëg ci ku ko soob de law laa am na man naa su fekkoon ne xewee na laahu yàlla alay naa ki ñun li ko noon la xusi fa labaleef wala la xasa fa labal bi naa ki ñun tey suuf way maanaam xéemal ka anna woon naka moom laa yuflihu maanaam du texe kaafiru na way weddi ña su ko defee kon gis nga léeg-léeg nga ñëwee nit te xamoo fu muy mujj moo tax nit ku ne boo bëggee noppalu fi la yàlla tollale moo gën fi nga toll fi la yàlla réglé boo yeboo yem fa rek te gërëm yàlla nekk ci lu baax waaye yàlla tollale fii yaa ngi toll ci midi nga ne man damaa bëgg a toll 3 heures du sotti kenn ku ne fi la yàlla toll réglé sa montor bi muy dox foofa moo gën ci yow waaye boo bëggee toll fi la yàlla tollale wu rek nga am problème yàlla ne tilka daaru góogale kër al axirati gu mujj ga najcaluha danañu def ko li si na ñaar ñi nga xam ne laa yuridoon du ñu namm uluwan ak kawe fil ardi ci suuf wala fasaadan du caakeen ak yàq wala aqibatu mujj gu rafet guñ sant lil muttaqina ñeel ñu ragal yàlla ñi de àllaaxira ña fay dugg mooy ñoo xam ne duñ yàq suuf di mooy duñ sàcc xalli jàmbur duñ këpp kees duñ tëddee jigéen guñ takku duñ fen duñ jëw duñ xaste duñ yàq suuf ci xeeti mooy yépp waaye tamit ñaareel ba duñ bëgg ak rëy jël seen kaw teg ko ca kaw bëgg a jël jaami yàlla yi suufee leen Omar ibnu Xataab bu jàngaan aaya ji rek jooy ne a yàq suuf de man ma ci waaye nag bëgg naa yëkkatiku tuuti nag xam nga léeg-léeg nit ki bëgg a yëkkatiku waaye tamit Omar ibnu Abdul Aziz jàngaan jooy léegi-léegi li da ko daan yóbbu ci aaya ji man de du ma yàq suuf waaye kon danaa wàccee sama bopp ku ma woo ma wuyu la du ma ci xem danaa dem ku maanaam di ratt di ratt gëlëm yi di ratt maanaam gàtt yi di toog ak ñu ñëw doole ñu wàccee boppam lii lépp pour bëgg a delloo ci moom waaye am na ki ñoo xam ne ku foor dong la ñu toog ak am na ñoo xam ne bala nga leen mën a gis dafa am noo war a mel man leen a gis am na ñoo xam ne boo leen wooyee bu ñu xàmmeewu sa numéro bi wala ñu xam ne kii xamul leen solo rek ñu coupé ko yooyu yëpp maanaam xulwan la kon nit ki dafay wàccee boppam moo tax mu ne ko bi ci tegu mooy euh, maanaam aaya ji tegu ci lil muttaqiina kon daara jóge ñoom ñoo cee dugg man jaa képp koo xam ne dikkee na bil hasanati ci jëf ju rafet di benn fa lahu ak i nekk la ñaar ko xayrun hiw minhaa bu gën sabab boo xam ne moo gën benn boobu ndax lañ koy fulal wa man jaa ko andi bi sayyi'ati ci ñaawteef falaa yu du saa defut fayaf la si na ña xam ne xam ne jëf nan saalihat jëf ju baax ilaa maaka loo xam nekkoon yax moom ko jëf de ku jëf-jëf ju baax da ko gis ku jëf-jëf ju bon tamit da nga ko gis aaya ji tegu ci nag moom wàccul màkka wàccul madina jox fa la wàcci muy inalati farada alayka alqur'ana yonentu bi muy dem di rañaani ñëw ba jox fa rek kalam nekk màkka ngir sopp ko ronka ña sotteeku nag yàlla wàccee aaya ji ko yàlla mi wàccee alquran ci yow tàgguhut la yónni la nga gën ci mbindeef yi tàgguhut la moom moomu tamit moo lay delloowaat ci dëkk bii di màkk nga génnee woon da nga fi ñëwaat de dem na Madina gaa yi ker nañ ko nekk na fa daanaka fukki at waaye gis nga ko ba muy ñëw juróom-ñetteeri at ba juróom-ñeent la ñuy def fatfu màkka indil leen doole joo xam ne mënuñ koo dékku mu mujj nag xilif ñaari ñaari ñaari ñaari dëkk yëpp xilif na màkka teg fa nday jooram jël Madina teg fa càmmooyam su ko defee gaa yi ko gënoon a bañ daw ñëw caawa ci moom di ko di ko di xettaliku mu ne lu def ne ko mbokk mu baax nga doon mbokk mu baax mu leen kon goreel naa leen su ko defee loolu lépp kon yonentu mooy koo xam ne bu jekkoo ay noonam jéggal leen waaye duut kuy jekkuy jekkali waaye la ko màkka def génne ko ko jëlax la li mbokkam yaag la ci aju lépp bu leen toppante woon keroog maanaam musiba am waaye ñoom ñëpp mu jéggal leen moo tax mu ne inna la fii ndaal buur ba nga xam ne farada moo dogal alayka ci yow quraan alquran la raa du ko dana delloo la ilaa maadin jëm ci delluwaay ba di màkka waqul waxal ne rabbi sama borom axlamu xam na bi man jaa koo xam ne dafa indi bil hudaa ki njub wa man ak moom fii dalal dafa nekk ci sànkoté mu bi nun borom xam-xam danañu wax ne aaya ji kuy tukki jàng ko sa buntu kër yàlla dana dimbalewaat ba nga dellu siwaat ndax yonentu mi ngi doon tukki jàng ko génn te dellu siwaat na muy inna lazi farada alayka alqur'ana la raaduka ila maadin kuy jàng kuy tukki jàng ko bu neexee yàlla da nga ñib siwaan ci kattanal yàlla yàlla ne ko wa maa kunta nekkoo woon tarjoo di yaakaar an yulqaa ba wàcceef rek ngoy firee ilayka jëm ceew kitaabu téere ba ilaa rahmati dul mooy yërmande istinaaw mun xateex la mi rabbi ko gu bàyyi ko sa borom kon falaa takku na bul fa hiran di wala yasuddannak bu mu tëdd loola an ayat laay walis aaya yàlla yi baxda unsilat gannaaw nga xam ne na ko ilayka ci yow waddoo na nga woote ilaa maa laay ànd ak yàlla ilaa an yàlla aqara laa ilaha benn buur ilaa huwa ndere moom kullu seen lépp la faaliku nday xalaku ba mooy ilaa waj wandëra jëmmi yàlla ja lahu agi nekk la ñeel ko alxukmu xatte bu jub wa turjaxoona def na delloo yépp ilayhi jëmee ci yàlla de teg leen seen baaraam foofu tombeeg saar wi jeex tombeeg tamit maanaam waxtu wi jeex yal na yàlla defal ñu tawfiq yàlla defal ñu taysiir defal ñu naataange defal ñu barke yàlla wàccee barkeeb alquran tabaarakallaahu ci ñun wàccee ci yéen wàccee ci kër gi wàccee ko ci réew mi mbooleem xeeti jàngoro yu bon yi ñu tudd ci na yàlla boole musal ñu ci may ñu mbooleem ja maanaam jikko yu baax yi ñu bokk ci ñuy dugg aljana bilaa xeqaay wala xisaab yi ñu tudd ci jikko yoo xamante ni ñu àndoon ak ñoom ñoo leen ko teg wala ñoom ñu teg ko ñañ àndoon ak yàlla musal ñu ci ñun ñëpp sagal mu ca kanam yàlla ëllëg ak mbooleem koo xam ne ni ka nga yaakaar fa nga wékk sa yaakaar yàlla na ko yàlla dëggal yàlla bu yaakaar yi tas ak rek àllaaxira kenn ku ne fi nga yaakaar ki nga yaakaar ba tàllal ko say loxo lu ko hëpp yàlla na la ko fa yàlla defal